tamit di leen jaajëfal yéen ñi safoo di teewlu xibaar yi ci Equivox TV mbokk yee dal leen ak jàmm ñu koy dooree rek campagne bi ñeewal wàllu mu ñekk yi nag war a xeex rek feebaru mbasum coronavirus dooral nañ ko tey nag ci talaata bi kii di euh, ministre de la santé rek Abdoulaye Diouf Sarr daal dina jël rek li nga xam ne moo di euh, dose bu njëkk ba ci noonu nag fële ca région de Diourbel rek lañu fa nemmeeku mooy yow boobule campagne nag ay sooxe dina ci am ndaxte bu ñu sukkandikoo nag ci li nga xam ne moo di médecin chef wu région boobu la mu xam ne rek moo di eh, yooyu les cartes yi nga xam ne moom la ñu war a joxe rek boo ñekkoo ba pare ak registre de vaccination ba ba léegi rek dafa yembagul ba tax na nag balaa ñaareelu pàccu dose yi rek di yegsi rek dinañu amal yooyu les campagnes division des investigations criminelles daal dinañu rek tegaat loxoog activiste bi di eh, Assane Diouf nege ni démb ki xam ne li ni mel rek moo di avocat bi di maître Cheikh Khoureyssi Ba ci noonu nag moom ak yeneen ñooñam ku ci mel nii rek Guy Marius Sagna ak door seen dikk daal dina tegaat ci ñoom loxo ñoom itam li warale bi leen mbir nag moo di ab ojo boo xam ne rek dafa fuité kii di door seen di ci expliquer rek manifestation ya nga xam ne waroon nañ ko amale tey ci talaata bi ba tey rek ci boobule audio rek kii di Clédor Sène laata ñu koy arrêté rek indi na ci nag ay leeral rek moo di boobule audio kii di euh, Moussa Sow nekk nag membre Clair Vision di liggéey fële ca Dakar 221 moo daal di euh, fuité rek boobule audio maanaam partagé ko ci réseau sociaux yi moom ak Clédor Sène nag la mu xam ne rek moo di euh, kii di Moussa Sow lam ca jublu rek moo di yàqal ko indil ko nag ay jafe-jafe rek ak justice waaye la mu xam ne rek moo di loolu nag Moussa Sow def munu koo teree rek mu wéyale xeex bi nga xam ne rek mi ngi koy xeex. député bii di Ousmane Sonko ñi nga xam ne nag ñoo di député yi amal nañ rek ab ndaje ni gën a démb fële ca pencu ma ndawum réew mi kii di Cheikh euh, baara Dolly nag daal na rek àddu ci boobu boobule mbir moom nag li mu xam ne rek moo di euh, doxalin bi nga xam ne ñoo yooyu la député ñu ngi koy amal rek ca commission ad boobu dafa mel nii rek jaarul ci yoon ndaxte nag kii di Ousmane Sonko dañoo bëgg rek salfaañe li nga xam ne moo di àq ak yelleef yi nga xam ne am na ko ci euh, boobu la assemblée ba tax na nag moom rek Cheikh Mbacke Bara Dolly la mu daal di xam ne rek moo di kii di Moustapha Guirassy ak nag Cheikh Bamba Dièye bañ a génnee rek ca boobule commission rek dañoo waroon a xoolaat doxalin ba organiser waat li nga xam ne moo di commission ba waaye ñii di député yi defuñ li ni mel rek moo tax nag dafa jàpp ne rek ñu ngi bëgg a salfaañe li nga xam ne moo di droit yi nga xam ne rek kii di Ousmane Sonko am na ko. ñu daal di dem ak yéen rek fële ca université Cheikh Anta Diop bu dakaar ginnaaw nag bañ fa génnewee rek ay ngànnaay ñii di étudiant wu Pastef yi nag ak bu frappe UCAD ak ñi nga xam ne ñoo di les waat de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar daal dinañ amal ay ndaje rek ak ñi nga xam ne ñoo di taskatu xibaar yi nege nii démb ñoom nag la xam ne rek moo di yooyu le ngànnaay rek nga xam ne dañ koo génnee ca biir campus social ba ñoom laale wuñ ci benn yoon kon nag bu leen ci kenn dugal waaye tamit ñu ngay dankaafu rek ñi nga xam ne ñoo di takkat der yi ginnaaw ba ñu jëlee seeni ñooñ yooyu nag di leen di xoqatal rek ca biir kaso ba ñu daal di dem ak yéen rek ci xibaaru bitim réew fële ca États-Unis nag lañ fa nemmeeku lañ fa nemmeeku rek mooy dëkk bi nga xam ne rek fa la feebaru coronavirus gën a méttee ginnaaw nag bañ a defee xayma ba rek lu tolloog euh, xaaju million ñoo ci jot ñàkk seeni bakkan ki nga xam ne nag moo di njiitum réew ma di Joe Biden mu ngay métitlu rek li ni mel te ñaan ñi nga xam ne ñoo di askan wi rek ñu respecté li nga xam ne rek moo di mesure barrière yi ngir rek freiner li nga xam ne mooy feebaru coronavirus foofu la ca États-Unis jërë ngeen jëf mbokk téléspectateurs yi doon a teewlu xibaar yi ci Equivox TV ñu ngi leen di jox dig daje rek ëllëg incha allah.